at baa ngi wax ak ñoom lamb nangook lamb bañ fañi eh fañi ak gëf ak gina la alian bàcc ak gëf fañi xalil fañi mooy bañal ci séeréer fañi fañi mooy bañal ci séeréer mooy bañal ci séeréer ndeysaan waaye papa yaada ndeysaan ñu ñaanal papa yaada mu mag ma papa yaada yal ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moom papa yaada papa yaada numéro 2 mooy njool mi at fañi Papa Yada numéro 2 at fañi Papa Yada numéro moo rango eh Papa Yada jam na ko oh Papa Yada fañi ndeysaan Papa Yada numéro 2 Papa Yada jël na ba Papa Yada hyperkil na ko eh Papa Yada fañi Papa Yada ba doog doomu daanu fañi at Papa saan fañi at Papa Yada ñu xeex ñoom ñaar fañi fañi ba fañ eh, kiro Papa Yade jël na ko fañi ba fañi jël na ko ñu xool ah, kaay leen ñëwaat leen ñëwaat leen eh, fañi jël na Papa Yade Papa Yade bañ Papa Yade am nga benn avertissement arbitre bi sifflé waat na Papa Yade am nga benn avertissement Papa Yade fañi Papa Yada at Fagny Papa Yada at Fagny eh Fagny feek Fagny kee de Fagny feek Fagny kee de eh Papa Yada Fagny maa a forcé aan te Fagny a forcé aan te Fagny bata yena lang naka waa waa waa leer la xa leer la xa kii mooy ponaar boo yaay ponaar Khalil dafay suus di volé di gëdd suus artaan faji eh faji daan na papa yaa da ndeysaan faji daan na papa yaa da ka daw mbaar ko mu taxan